ñun ñëpp parfois dañuy wax mel ni ñun rek la quoi. Mhm. ñun la parce que ñun la. <laughs> mais le monde entier a les yeux rivés sur le Sénégal. ok par force. parce que géostratégiquement parce que géopolitiquement parce que le Sénégal est un est un pays portail et né de l'Afrique. Mhm. tey jii nii ma xarit bi nga xam ne ci suba mu nga embarqué di jóge Paris pour dem wàcc Montréal tey ci suba Air France. Mhm. pour mu yegg Montréal faw tour de contrôle Dakar guidé ko ci océan Atlantique bi okay. pour juste dire au combien le Sénégal est important dans le monde dëkk ba mel noonu nag du benn nit moo kaa jël def sa la ka neex ba egg fenn fi te du am retombé le président Macky Sall est arrivé à la fin pourquoi à la fin jéem na de jàmbaar la de ci li mu bëgg a def mm-hmm. forcé na conséquences yi désastreuses ñaata sénégalais lañu fi ñàkk ñaata nit ñoo fi ñàkk looloo ak loolu. Mhm. parce que le président Macky Sall a commencé à changer de done le jour bi mu nee nii oui nii non fa la yàqee carte gi lépp. li mu defoon ci lu baax. bis ba mu tontoo ne nii oui nii non. te xamoon ne deuxième madame dafa war a dem ca la yàqee lépp. comme la wax waxee de Abdoulaye Wade. c'est même pire c'est wa Wade était benn âge bi ensuite Wade bi moo wax. il disait américain yi ak français yi ñoo maa xeex. Mhm. on a compris que il avait raison ci moment boobu. mais on n'avait rien vu venir. par contre le président Macky Sall si fringant et jeune avec toutes ses promesses mu ñëw def li Wade def. et en pire parce que wadd Wade faatul autant de personnes. wax ma ni président Macky Sall faat mais ci ayam la ñu fàtte. pour dire que fi ñu toll nii Sénégal àdduna bi da kaa xool di kaa contrôler Anthony Blinken. ba mu jëlee téléphone am wax ak président Macky Sall. newuñu fa woon de. waaye la mu wax leer na. élection yi da ngeen kaa def normalement parce que Amérique daf fi am ay intérêt occidentaux yi Union européenne dañ fi am ay intérêt mhm. te du ñu sàggan. Mhm. bi xale yi naan Russie Russie ñuy gis benn drapeau Russie. Mhm. ñu kaa gis ci biir. Afrique occidentale ci bakken bi fi nga xam ni tey Sénégal baa jëlee ambassade Amérique bi nga taxaw foofu ginnaaw xunt ba. tourné fa ca des jàkkaarloog Amérique Sénégal rek am loolu ci jàkkaarloog Amérique. wa bu tubaab yi toogee gis dëkk bay dem fenn fi. Sénégal yi naan na Russes yi ñëw nu kaa digg. ak seen ay service de renseignement xam lu ñoo def. ne hey seen waa ji ne leen ko mu taxaw. loolu mooy affaire bi taxawal. mu taxaw benn la ca des nag moo ne le président Macky Sall conseil constitutionnel daf ko sagal maanaam. dafa nangu lenn la ci moom. ba pare jox ko ci ci fa ca des. maanaam rafetal. aujourd'hui le président Macky Sall dafa war a rafetal nag. léegi li ci des mooy jeexal affaire bi. ni borom tàcc yooyu di waxee ni jeex na. mu jeexalee ko noonu. <laughs> rafetal ko li ñuy dem ci jàmm ak salaam. Mhm. ñu avancé. ma tëjee fenn. yàlla na yàlla jubale xalifa Ababacar Sall. ak Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias njëriñ la ci réew mi. la ma xam la ma yomb la ma xam la yomb loolu. la ma xam la ma su fekkee ni wax nañ ma ABCD Z xam ca E L la ca des. xam par exemple ka xam ni yàq na listu Yewwi Askan Wi entre supplément ak ka ca des ka ka yàq dem toog kër nit wax fa la mu fay wax réccu. ak leneen ak leneen la ca xew. ay bu nu mënoon wax lépp. li am solo. Mm-hmm. mooy ay gor ba nu àndee xulil. la ka nar a ñaawal nañ ko seppi teg ko nële. la rafetal ñu dooleel ko. Euh, jërëjëf Mass balaa ngaa daaneel rek parce que sénégalais yi ñooy laajte quoi comme que Rose dafa Rose dafa def conférence de presse ne moom boog retiré wu na. Mm-hmm. ñu ne léegi retrait boobu noonu ban impact lay am ci élection bi. Euh, à de la publication euh, de la liste. jusqu'au jour du scrutin. képp ku ci retiré. amul benn impact ci élection bi conseil constitutionnel est obligé. mu jëlaat beneen décision. génn ci turam. ok mais amul impact ci scrutin bi. lii am impact scrutin bi mooy candidat bu de décédé de détaillé loolu amagul te yàlla bu mu am. donc diggante élection bi ak kii bi retrait bu mënti am moom wàññiwul dara ci lii bi article 34 constitution sénégalaise moom. jërëjëf ndaw rek 30 secondes. bu waa Tëngéej. ñu yóbbante parce que. dama gis si tëngéej jamono ji ñuy wax ne am na ñu ñu bàyyi si ñi ñu jàppoon mhm. te ñun waa tëngee tam ñu am si ay xale ñu jàppoon fooñ fu ñu mën a féete intéressé wu ma doomu tëngee lañ mhm. donc ñoom Abdou Karim Bey ak ñoom Pape xaw ma nan Mbaw mhm. xale yi tëngee yooyu ñu jàppoon comme na am na ñu ñuy bàyyi ah, waaw Babacar ñooñu ñuy comme am na ñu ñuy bàyyi waa tëngee yooyu itam nañ leen si boole bàyyi leen bi si des comme ni kiy ñaane rek yàlla na yàlla def. Macky Sall ak Idrissa Seck ak Karim Wade yàlla na leen yàlla boole ñu doon benn. <laughs> pour l'intérêt du Sénégal. yaa ngi confirmé deal bi ñu wax. ah non pour l'intérêt du Sénégal. li nga def baaxul de. temps bi xoj na li nga def baaxul de. waaw waaw mais li nga def baaxul de. temps bi xoj na gis Abdou Aziz Abdou Aziz euh, mi ngi may euh, mi ngi may mi ngi may tàcc foofu boobu léegi. dafa amoon rek euh, par rapport ak négociation yi ñuy wax Ousmane Sonko di fàttali Sénégalais yi Ousmane Sonko mu ngi prison. Ah, surtout te amul dara lu mu demandé. Mhm. parce que dafa war a leer. absolument bu fekkee le président Macky Sall.